ngi présenté ñaari mbër yi ndeysaan le 7 mars fii ci arène nationale Angleterre bu dóor dóoraat ak majji majji ndeysaan Ousseyn a ngi noonu di Angleterre a ngi noonu yëkkati na loxoom taxaw na fi mu taxaw di waaj a présenté waat keneen ki Ndeysaan maaji maaji yëkkati na loxoom use ñaari combat ñoom ñaar ñëpp ku ci nekk daa gëj a bëre maaji maaji deux ans mu ngi nii bëriwul Angleterre deux ans moom it bay dugg ci troisième année bërewul ñoom ñaar lan mooy seen avantage ci combat bi. Baye Djili maa lay nuyu di la char di le bëgg baax baax di leen wax nag làmb ju naa bàyyi calcul la ndax booy xool Angleterre mii bi mu fi mujjee jógee caaka fay moo ko daan maaji maaji moom tamit gëj nañ koo gis te waa waala dañoo ci moom yaakaar anglais dafa am lu muy représenté bii dóor dóoraat ndax boo xoolee. bi bés bi mu ñëw tey ñëpp dañ ko ëmb waa Dóor daal ñëpp dañoo jëm ëmb yéene ko ndam te boo xool maaji maaji moom tamit dafa am fu mu jógee am fu mu war a dem combat bi bàyyi ji ragal naa calcul bi dina xaw a bëri tuuti waaye yàgg yàgg yàgg yàgg ñoom ñaar dañuy bëree mais kii di angale xeex moo ko arrangé waaye xam naa ne kii di maaji maaji bu abi bi sifflé du taxaw xaar ko moom. Ndeysaan dégg ngeen la nga xamante ni moom la Ouzin wax ndeysaan ñoo nga noonu ñoom ñaar cey àdduna làmb ngoog li wolof naan bindum teen la ku ñëw ci pind ba ngay yem ma nga noonu waaw walum teen la ku ñëw ci pind ba ngay yem làmb Angleterre a ngi nii la nga doon waaj ay weer di ko laaj ay semaine di ko waaj ay bis tey tollu nga ci càppaandaw ga arbitre rek ngeen di déglu majj majj la nga waaj ay weer waaj ko ay semaine waaj ko ay bés tey tolloo ko ci cappaandaw ga majj majj def na open press wax sànni Angleterre def open press wax sànni ñoom ñaar ku ci nekk da ngay déglu ñoom ñaar ku ci nekk la mu wax kan moo koy jëfe Angleterre wala majj majj Ouzin nan nga yaakaare ni làmb ji dina daje man de gëm naa ni xeex bi. du dëgg ci ñoom ñaar ndax Angleterre bëgg naa xeex maaji maaji bëgg naa xeex waaye ku ci nekk dafa gëj a bëre amaa ragal ci bëre lay mujj. baa ji li anglais mi ma gis bu abili siflee pénal yi tàkk lii maa ko bindal téere takk loolu mooy avantage su anglais tey ci làmb ji abili siflee mu taal pénal yëpp daw dox ci ko dox ci kaw maaji maaji waaye lu mu taal pénal taal pénal dina sóoraale ay tànkam moom anglais moom. Madjma ji nekk na mbër moo xamante ni tëlewul xeex. déedéet mën naa xeex te naa bëre. Angleterre bu doon maay moom bu arbitre ne prip da ngay déglu Madjma ji rek xaar ko ci lu mu indi bu indee xeex nga jàpp ko bëre bu indee bëre nga indi xeex Madjma ji moo avantage am mooy di dugal daw dóor déplacé wu dóor gauche wala dóor droite daw génn dugg yondu. dugg génn loolu moo leen di arrangé ñoom ñaari mbëri arbitre bi ngi waaj a sifflé waaw arbitre baa ngi waaj a sifflé moo ngi naan maaji maaji kaay nga taxawee nii di waaj a laaj ay juge am arbitre bi sifflé na bàyyi jili samedi 7 mars 2020 arène nationale Ouzin production moo ñu fi woo il est 21 heures 2 minutes maaji waalo Angleterre dóor dóoraat waaye bul fàtte ne suba làmb ju mag am na bàyyi jili ndeysaan diggante Franc Bébé Saloum. Ndeysaan jam production kenn moom. Ndeysaan màjj màjj moo ginnaaw. Angleterre moo ngemboo ngemb lu weex li taxaw na samp tànk yi di leetoo. Angleterre màjj màjj. Angleterre booy xool moo ngi leetoo mais boo xoolee kanam gi nga xam ne tànk màjj màjj yi lay xool waaye bàyyi ji li Angleterre day xeex li muy def dëgg moom màjj màjj bés bu Angleterre siiwul. bu ko sàccee moo xam ne lépp dëgg la bàyyi ji lii. Madji Madji taxawaay bi baax na Madji Madji ni muy taxawee ci combat bi baax na trop te lii moo. nga moo gën a nekk ci combat bi anglais. parce que combat bi ni ko Angleterre di bëree mooy calcul looy bëree ci combat bi Madji Madji dafa gën a woyof Angleterre poids lourd la ak poids léger Madji Madji bu ko neexee déplacé wu Angleterre déplacement bi du yomb ci moom ndax bu arbitre prip bu bëggee dox ci kaw Madji Madji bëgg a daw indiko ko lamb ji mën na cee am mbégteel maaji maaji nag côté bu ko neex lay demee. Angleterre sànni na Angleterre door na léegi Angleterre sànni na dalul. Angleterre na léegi. na dalul taxaw na leetoo Angleterre maaji maaji maaji maaji moo leen woon ginnaaw Angleterre da koy bëgg a jàpp maaji maaji du nangu loolu. jàppante bi arrangé wu ko. est-ce xam nga ne ku ci gën a gaaw yaa moom làmb ji bàyyi ji li làmb ji ko ëpp vivacité yaa moom làmb ji tey ña nga ca ñoom ñaar ña ngay di xoolante ci bët Angleterre da ko jàpp maaji maaji Angleterre ña ngay leewaatoo ndeysaan gisuma Alioune Seye de waaye lekkatul naanatul gisuma Garga Mbossé waaye moom it lekkatul naanatul ñoom ñaar ku nekk ay bëre bi daal xam naa ne Lac de ak ki nga xamante ne mooy Garga Mbossé la kii Lac de bu waalo moo ko indi kee Garga Mbossé moo ko indi Angleterre nee na Garga Mbossé moo ëpp doole Lac de Guiers 2 majj kuy contact ak Lac de faalewul Angleterre taxaw na ñoom ñaar arbitre bi àtte na Madji Madji nanguwul taxaw. Madji li lamb ji làmb ji calcul la ndax boo xoolee ñoom ñaar ñëpp ku ci nekk da ngaa gëj a bëre il faut que ñoom ñaar ñu calculer bëre bu leen amateur mere buñ jàppante rek mu neex ñoom ñaar. dañoo taxawul bëre ñoom ñaar arbitre bi sifflé waat na Angleterre Madji Madji ñu ngay lewaatoo Angleterre nga jiital tànk ndi joor majj majj jiital tànk càmmoñ xeex du neex ci combat bi ndax ñoom ñaar position bi ñu taxawee xeex bi du neex ndax Angleterre pour mu dóor. est que xam nga ni ñu taxawee nii ku ci sànni coup bu jaadul bu la jëlee bu lay yeggee sooy lamb ji jeex baa ji. lamb ji benn song la Angleterre a ngi naan ko taxawal bëre Angleterre nii muy bëree mooy combat bi majj majj nii muy bëree mooy combat bi majj majj ni muy bëree làmb ji baax na. Angleterre da koo bëgg a jàpp da koo bëgg a jàpp du gaawee noonu du gaawee noonu ñoom ñaar ña ngay lewaatoo Angleterre daa bëgg dem Angleterre daa bëgg a dem waaye maaji maaji mayu ko ko hey lamb expérience. xam nga bu xeexoon am da Angleterre garde boo xoolee chaque buy lootoo lu koy ibbi. gëmul ni maaji dina dóor. Tapha Mamadou yor na arrêt de gauche boo xamante ne. ku buy du tàggoo Baye Djili. buy ñëw du tàggoo ba mu yàgg Maji Maji taxaw. daw jàpp am na ci combat bi. Maji Maji a ngi bu tiiree tiiree na. kuy du dal kuy du dal Angleterre leeto bu bari bi baaxul ci moom ndax loxo yi day chargé te maaji maaji boo gisee ni muy def. maaji maaji fi mu ko jàpp temps la bàyyi jëli maaji maaji fi mu jàpp combat bi temps la gëm naa ne combat bu yàggee avantage bu maaji maaji lay nekk ndax li muy def nii yëpp la da koy bousezloo ba nanguwul taxaw fu mu Anglais mébé mu daw def déplacement Anglais def ci tànk ba la jëm. Madji Madji ci tànk ba la jëm day cokka Angleterre sànni na mais dalul sànni na laaw waaye dalul sànni na loxo góos ba Madji Madji a ngi taxaw rek Madji Madji a ngi taxaw rek ci tànk yi la jëm de buñ jàppantee rek làmb ji jeex Angleterre sànni na dalul Angleterre a ngi dox ci koom dóoraat na Angleterre nga dox ci koom. dooraat na est-ce xam nga ne Madji dina jël tànku Angleterre bi. Madji Madji dina jël tànku Angleterre bi nii muy nii muy nii Madji Madji di bëree. bés bu ko bëree bu yëndoo bu ko angale dóor dóor mu wàcc mën a ci am baay jiili ndax boo xoolee buy buy def bu angale di dóor moom day fekk muy reculer te tànk boo ko yëkkati ku du ñëw bés bu tasanteeg yow ku am lu leer laa la wax kaawoo am. Madji Madji Angleterre. ña ngay demee wet ñoom ñaar. combat bee ngi bëgg a duré arbitre bi àtte na bërëwuñu avertissement Madji Madji benn avertissement Angleterre benn arbitre bi nee na bërëwoo leen arbitre bi nee na bërëwuñu waaye boo xoolee Angleterre ni mu dirigé combat bi moo gën a baax que màjj màjj avertissement avertissement wu pour man du yoon jaru woon ñu koy jox avertissement ña nga noonu arbitre ba sifflé na ña ngay lewaatoo Angleterre màjj màjj jiital tànk ndi jor Angleterre sànni na Angleterre ni muy dóoree baaxul te day wàccee garde bi loxo gauche bi ma ngi koy wàccee xaw ma loxo droite bi maaji maaji bu doxoon ci kawam rek bu dóoree day am dara bu siifuroon rek bu dóoree ji coup bi dina dugg Angleterre maaji maaji ayca waay ayca ayca Angleterre sànni na coup baaxul Angleterre sànni na maaji maaji dóor na maaji maaji dóor na Angleterre dóor na jàppante nañ déedéet dañoo dugg rek génn ñoom ñaar dugg nañ rek génn ndeysaan ndeysaan ñanga ca Angleterre dox na ma ngay dox Angleterre dóor na dalul dóoraat na Angleterre nga koy dóor ma ngay dox ci kawam ma ngay dox ci kawam tuuti ma ngay dox ci kawam lamb ji buñ jàppantee rek mu jeex waaw waaw buñ jàppantee mu jeex Angleterre jàpp na ci loxo ba ma ngay dox ci koom ma ngay dox ci koom. mais Baye Djily yaakaar naa ne bu xeexoon fii du am dara. Madji Madji ku Angleterre garde bi dafa wàcc ba ci suuf Madji Madji bu doxoon benn arrêt de gauche indi droite bi rek dina dal. yii yëpp gëj moo ko waral. ndax boo xoolee dañoo dañoo perte ay repères ñoom ñaar boo xoolee ni Madji Madji bëree lii du làmbam angale boo xoolee ni mu bëree du làmbam xolo xolo garde yi Baye Djily garde yi. Angleterre nga wax. ma nga naan arbitre bi nee ko mu taxaw léetoo bu yàgg bi wu ko waaye ña ngay bëri ña nga ca ñoom ñaar ndeysaan Angleterre door na maaj maaja ngay baare taxaw maaj maaja ngay door ma ngay dox ci koom maaj maaj bëgg naa jeexal combat bi Angleterre fayu na ña ngay xeex dóorante nañu ay coup yu dalut maaj maaj dóor na bu dal maaj maaj a kaawo dóor na ko daanu Angleterre dóor na ko daanu baaxul hee Angleterre dóor na ko daanu